ba du ma fa teew ndax yégaluñ ma boolewuñ ma te eh, je crois que su ma nee kilifa eh, yàlla def Ziguinchor yëpp wóolu ma ba dénk ma ma nekk maire Ziguinchor mënuma dem ci ay événements yoo xam ne kenn yégaluma ko tey ñu ngi dimanche ba waxtu wi may wax du coup de fille du invitation buñ ma yónnee kon ma faa dem. man nit nag da ngay wax dëgg mag da wax dëgg ba fii may wax nii du invitation bu ñu jot. na ko prouver d'ailleurs ndax invitation dang koy bind te so démé nañ la ko décharger du invitation buma jot du coup de fil buma jot ñom nak tam nañu di wax lu dul mag day wax deug man suñu ma joxone invitation ma dem stade ndax Casa Sport kenn ëppale wu ma fa demb barki demb convoqué na conseil municipal proposer leen ñu voter une prime exceptionnelle de 20 millions pour le Casa Sport kon man suñu ma invité won ma dem fa rawatina nak su dee coupe du Sénégal ñun ñëpp ñu mom ko te loolu gouverneur moom moo waroon saisir ndax loolu bokkul ak Casa Sport. mais dëkk bi nga dëkk yaa ko jiite est-ce que véritablement nekkul tamit nga bañ a xaar invitation dem. comme non non non kilifa tamit fu ñu la dem. xam nga àdduna dafa am nu mu tëree. question rëy du dara mais kilifa fu ñu la woowul bu fa dem ndax soo fa demee buñ la fa toroxalee it yaa ko deg sa bopp. Mhm. man jàpp naa ne ne serait pour l'image des Ziguinchorois et des Ziguinchor le minimum yàqul dara. ñu ne diw mooy maire Ziguinchor donte du mën a ñu ci ay élection may loolu weesu na tey man maay seen maire ñoom ñëpp ku soxla eh, kayit man maa la koy signal loolu la yàlla def politique bu jotee ku nekk na dem politique yi man que ñoom ñu may attaqué politiquement mosuma leen tontu ndax du ñu samay nawle ci politique yàgg naa ko wax on ne boxe pas dans la même catégorie donc duma leen tontu samay àndandoo sax duñu leen tontu mais politique bu jotee kenn ku nekk ci ñun xam nga nooy politiquer man xam naa fu may jaar ba duma leen te du ma utiliser Casa Sport du ma utiliser association religieuse du ma utiliser association culturelle programme laa am ak discours ak image moom laay waxee waa Ziguinchor ñu booteel ma nañu bàyyi di yóbbu politique fu politique yoonam n'ekul. Casa Sport du instrument politique gu kenn bu ñu yaakaar ni Casa Sport moo leen dese pour ñu yóbbu ko yéet ko Macky Sall dañuy nax seen bopp li ëpp ci Casa Sport muy supporter muy muy muy muy encadrement muy joueur boo leen laaj joon kan la ñu àndal dañ leen ne Ousmane Sonko te musuma dem ci ñoom wax ak ñoom politique chaque fois su dara amee dinaa jël ci sama poche bopp joxe waaye su ma ko joxe ba pare daaw moo ci mujj dama leen ne bugguma sax ngeen wax ni Ousmane Sonko joxe na parce que dama ko joxe en tant que supporter u Casa ba may ne xale ba léegi fii dama daan nekk fii di ramasser des ballons bi Casa daan joué fekk ñu nekk xale donc Casa suñu équipe la donc amul luñ ciy soxla ci politique. la ñuy def dañ koy def parce que ci fii la ñu dëkk démb balaa ñuy nekk autorité fii la ñu dëkkoon di ko def rawatina tey bi ñu nekkee autorité kon nañu bàyyi di politiser fu politique nekkul Casa Sport mbirum Casamance yëpp la c'est devenu même un patrimoine national ndax bu Sénégal di football li gën a fës ci supporter ale Casa la kon yenn yi nañ ko bàyyi man nag fuñ ma wowut du ma fa dem gouverneur Vous na ma fi ñu jaar yépp ci région yi maire ba fa deux jours ou trois jours une semaine à l'avance yégal ko ni nañ ko ni coupe bi dafay ñëw li tax ma toog ba tey ji yéeguma ko est-ce que loolu yoon la kon moo tax du ma fa dem du ma fa jege et je leur souhaite une très belle fête bu loolu weesoo Casa Sport les joueurs et Allez Casa dinañ leen recevoir parce que am na prime de 500 000 francs par jour bu leen di jox pour féliciter leen ci saison exceptionnelle bi ñu def euh, Allez Kazaït, am l'union wajal ñu waajal loo xam 9 millions wala 10 millions pour encourager leen parce que c'est les supporters les plus dynamiques du Sénégal foo dem fait clair, mobilisation exceptionnelle Nous def nañ ko ci Ziguinchor donc tous les habitants de Ziguinchor du man Ousmane Sonko te defuñu ko di ci ut dara en retour politiquement C'est ce que suñu position.